Give me a Fass jël bi nga ko déggee nga ko gis ah décision bi waa Fass jël ne boo ko doon gis. Fass ma ciy tontu lu ma laaj sama combat ak Siteu ñu développé ci. je parle am nga am ñu dugg ci sa combat da nga nekkul ci écrit maanaam doon bëree seen licence signé contrat ci seen licence ñoom ñu koy jël décision donc décision bi jël ñu ko à am na décision boo xamante ne que bu ko jëlee te nga bokk ci réew mi am ay supporters ak i fan sénégalais yi war nañu xam lan moo motivé décision boobu. waaw dama nga laaj leen ñoom décision bi ndox ñu jël ko. ñoom la intéressé man ça m'intéresse pas waaw. sa digganteeg Siteu fu mu tol parce que. waaw ñu ngi entraîné rek di xaar ah. waaye. jox nañ leen date. moo ñu ngi dégg am nañu yaakaar ne dara dinañ ci bëri incha allah. may champion bu mel ni Siteu chance par rapport ak fii nga jógee est-ce que wóor na par rapport ak top sa carrière. non kenn maye ko chance dafa prouvé ba ñu war a bëre ñu war a bëre yaa ko jiitu ci làmb yaa ko bay victoire. Ah, mais làmb noonu la làmb fekkante la rek. dafa am mbër ki muy bëreel kooku jur ci làmb dañu maa nit ñi di bëre fekkante la rek. léegi bon ban équipe la bokk Rock Énergie wala parcelle boobu. gars yi suba ngeen wax may sax gars yi ah. sa Tafa ñu ngi lay ziar. waaw maa leen di delloo ziar bu baax a baax a baax. parce que dafa xat da ngeen maa tàcc ngir yàlla war a suul. firiw ma waaye ah. gars yi c'est bon. soo beeg lépp baax na. maa leen delloo ziar bu baax a baax a baax di nuyu waa parcelle 1 ba 26 ñi ngeen fi fekk waa Grand Médine waa Nord Foire Cambérène ma kenn di gërëm yéen journalistes yi bàyyi seen yite ak seen jàpp jàpp-jàpp yëpp ñëw taxaw si bés bi ak samay mbokki mbër samay xarit yi ngeen fekk bàyyi ma kenn plus particulièrement daam seen bi ngeen gis daf ma taxaw daf may jàppale dafay sonn si man di nuyu ñëpp képp ngeen fi fekk nga jëm si combat dimanche ki ngay bëreel muy Alioune Seye Junior yàlla def daaw mu bëre mu moom mu combat am dafa ñàkkoon yow tam Mame Balla mu la mujj daan ngay bëre koo xam tamit moo la làmb Tapha Mbeur actuellement combat boobu ban taxawaay la ci war am ak fu mu ci toll. waaw damay sant yàlla rek li ma ci war xam naa ko jarul wax ju bari liggéey moo ma ci war ak ñëw wane preuve moo tax maa ngi si kawam di ànd ak samay grand frère ak samay mbokki mbër waa parcelle ñëpp jàppale ma ku lu mbër fii parcelle yaa ngi suma ginnaaw yaa may taxaw yaa may jàppale kon man li si des mooy lan ma ñëw wane fulaak fayda bés ba yàlla may ma ndam ma ñibbi. waaw moo la def nga war a bëri ak may Alioune Seye junior muy muy mbërëntaan comme yow tey nga jóge si defet waa parcelle yëpp ngay dégg lu ne mais tey làmb ji la nga si waaj say mbok say àndandoo say supporter ak boobaa loo indil waa waa waa parcelle. waa làmb ji su ma la waxee dëgg rek waaj bu méttee méttee méttee lañ si waaj xëy na di bëre di daan di daan ama woo defet dafa xëy na defet mooy def mbër nit mais Alioune Seye bu jàkkaarlooyee ba pare dina xam ne Tapha Mbeur mi beneen Tapha Mbeur moo fi nekk li si war yëpp maa ngi koy def xaw ma lu may calculer si moom. man li ma koy sant mooy ñëwal stade waxuma ko dëggalal sa bopp waxuma ko leneen leen laa ko sant mooy na ñëw biir stade leneen lu si des sant ma ko ko li fa am man maa koy def. moom nee moom ak lu mën am day am ndam. ndam yàlla moo ko yor mais man sant naa yàlla bu baax kooku du man ak moom xëy na si li ma jugee sax moom a booleeg moom mais lamb boolewuñu dara ñu lamb mooy jaxase ay mbër moo tax ñu bëre ak ci li ma jugee mais su ma paree ci moom dina xam ne du man ak moom. coono yi fi ma toll sori na trop te bu ma arbitre sifflé man ak moom dina xam fa la ma làmb ji toll mi ngi wax lu ne Tapha Mbeur naw ma ko si bëri naw ma ko ci xeex xëy na loolu dañoo jàkkaarloo góor mais góor balaa nga kaa yem ñam ko yàlla baax na. Tapha maa lay ziar bu baax a baax. lay màggal. Alioune Seye Junior démb dañ ko seeti koñam moom mu ne yéen waa parcelle xam ngeen kan mooy Alioune Seye Junior bébé Modou Lo jaar na fi Brise de Mer jaar na fi nee na Modou Lo nekk sa ginnaaw ak keneen keneen nekk sa ginnaaw moo si nee na jour ba yow boo taxawee dëggal sa bopp dina xam ne yow yow taxoo koo jóg. waaw loolu li ma siy wax du bëri moom Modou Lo du moromam Modou Lo bi muy wax moo indi diw ak moo indi diw du moog moom man ak moom la moo Tapha Mbeur la su paree ci Tapha dina tal leneen lu dul ay Modou Lo indi na diw ak diw ak diw yàlla baax nañu yàlla may tal ak fekkee wér ak wér la incha ba bés ba. benn question laa dese. moom nee na combat bi moom du gaaw. nee na waaye lu mën di am moom mooy am ndaw mais combat bi du gaaw mais lu mën di am daal moom mooy am ndam waaye du gaaw. day nguus gars yi rek mais yàlla baax na ba bis ba man len laa koy xamal damaa sangu rek mais nelaw ma maanaam di jéem a wax combat bi day gaaw di gaaw moom li muy pare sax xam naa ko li muy prévoir koñam sax maa ko fëpp nit pour mu leer bu ñu jéem a gëlëmal na bis ba rek yàlla baax na du ma ci wax stratégie boobu bosam la. sama boss dama koy nëbb. wax jii nga wax waxoon nga ko ci Mame Balla Cissé ne ko fi nga dëkk ba seen biir kër. tey waxaat ko Alioune gis nga xam na combat bi lan la la mën a may soo ko amee ndam ak lan la bu baax a baax a baax moo tax ma fonk ko maanaam ku ma ci wax loolu dafa nekk dëgg man booy banlieue la si banlieue bi laa juddoo ba tool nii ma toll. aw ma benn sens interdit dëkkuwaayu kenn fu ne heure mu ma neex laa fay dugg su ma nekkoon sa koñ maa ngi ko bëgg ma ko teg mais damay sant yàlla di ñaan yàlla suñu borom yàlla ma yàlla may ndam lu sedd guy. man li laaj Tapha Mbeur dañu gis keroog dimanche bële wala mercredi comme tey Tapha Gueye 2 Abou Niasse jël ko muy xale ak mag mu mel ni Abou Niasse am na ndam mais ndam la nam ko amee neexu ko am ñu xam ne ñoo xam ne sax nee nañ moom est-ce que xale yi waruñoo bëri seen biir. parce que am na ñoo xam ne dañuy wax naan Tapha Mbeur dafa bëgg lu yomb ak nangam est-ce que sóor yaa ngi sóor li dal Abou Niasse mercredi passé yaa koy sóor pour daam loo xam ne moo war a jël dem sama yoon nekk ma fi di yiir yaara làmb la nag Aliou Seye Junior wax na ko si biir waxam moom du mag Aliou Seye Junior bu nekkee mag kon ñu ñëpp nañ bàyyi bëre maanaam man mag mag ma yomb na moom moo mag sama magu papa sax kon man mag ma yombu na man mag ma yomb na xëy na damaa teel a bëre bëreeg Tapha Mbeur force xale ngay bëreel pour Tapha Mbeur bëreeg ma kum tollal aas dina jafe torop parce que boo wanee say preuve làmb noonu la Balla lu ñu wax na bëreeg Boy Niang est ce que foofu maga xaay dafa am ñoom ñëpp ay jeunes lañ mais magante day am si làmb yàlla nañu yàlla may talak fekkee mais stratégie bi Tapha Gueye day indi woon keroog maanaam bu Alioune Sèye Junior ñëwee def loolu da ngay man daal li may pare duma ma ko wax mais moom nee na góor la garmi la doomu banlieue la maanaam sañul def li Tapha Gueye dee def du ma ko wax dara ay boo defee lii lii laay def bu taxawee dëgël boppam ñu bëre su dawee duma si xam dara du ma si wax lu bëri parce que làmb du ma dem ne ko lii laay def mais en li may pare pare naa ko. bu rafet loo waaw. pël nee na ndax combat bi day gaaw wala day yeex ndax du risque ci yow ndax yéen ñaar da ngeen a jóge ci defet moom xale daan ko yow mag daan la nga ñëw jëlaat. no làmb ji man du risque si man parce que man dama tarbiyu làmb dama jaar si lu ne làmb ji day gaawam day yéex ça dépasse Alioune Seye du ma ne ko day gaaw du ma ne ko day yéex mais na ko leer ni pare naa lépp. loolu mooy leçon bi loolu tuddeewu ma ko sax erreur mais leçon laa ko tuddee te jàpp naa ne bu incha bu bis baa xam ne leçon su la. incha parce que na moom moom moo la ñoo ci mën foofu. ñun parcelle ñoo ci mën fuuf su bis baa bu teelul ñëw du dugg pare nañ ci côté yëpp li may tàggoo mooy di woowaat samay supporter ndax lamb ji ñoom laa koy bëreel samay supporter ak waa parcelle ñoom pare nañ ci côté yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp maa ngi woo waa Caaroy waa Malika waa Kër waa parcelle bii ma dëkk Cambérène Grand Médine fépp fu kuy bëggee nekk waa Seras waa Mbaaru Sëñ Fallu bi maa ngi woo Mbaaru Sëñ Fallu bi ñoom Calaaw ñoom nga béto nees aada gànna bàyyiwuma kenn séeraas képp ku fa nekk maa lay woo si combat bi maa ngi woo waa parcelle yëpp 1 ba 26 di leen wax ni nag bés bi sama bës la waaw maa ngi woo waa Mara bu bëgg Fallou maa ngi woo bu baax maa ngi woo André maa ngi woo Boro maa woo képp ku may jàppale professionnel yi nekk parcelle Daouda Sow Cheikhou Kouyaté Habib Habib mi koy woo maa ngi woo Pape maa ngi woo képp kuy professionnel nekk parcelle combat bi sunu combat la te buñ paree si moom dina xam ni dañoo soxla ba dimanche bu soobee yàlla